Kurban compatriotes euh, et d'ailleurs. Le président Ousmane Sonko, comme il l'avait annoncé, a débuté cette grande caravane de la liberté. Il est présentement dans le département de Goudom. mbokk salam alaikum. ñoo ngi fi ci diwaanu Goudomp avec la caravane de la liberté ñoo ngi jugee Ziguinchor ñaari waxtu ci ginnaaw fii mooy Goudomp ñu bàyyi leen nag ambiance bi. fii mooy Goudomp Goudomp di dëkk bu jaar na fi jaarati fi woon nañ ñi moo tare bu ñu seetaane Vous ñu ba Macky Sall am li mu bëgg jeunes yu bari fii am nañu 18 ans wala 19 ans wala 20 ans ba 30 ans bu ñu nangoo Macky Sall def li mu bëgg xam leen ni vous serez des prisonniers et des esclaves dans votre pays. gis ngeen lii lii yàlla moo ñu ko may te liggéey bu rëy la depuis 8 ans nous avons saga nañu nañu xass nañu dak ko mais accepter nañu supporter parce que nous aimons ce pays là mais ce qu'on ne pourra pas accepter moi Macky Sall dans huit mois pour élection année Ousmane Sonko sera président de la République ci mu mom day topalé ànd ak ay juge pour tere Ousmane Sonko nek président de la République est-ce que yéen la jeunesse de Goudomp di ngeen ko nangu kon suñu ne marche pour la liberté loolu lañu bëgg wax notre liberté sera définitivement acquise dans 9 mois 9 mois ba rek ñu def kenn ku ne ci yéen suñu nattee atam ñaata yoon 9 mois ngi ci nu mu tuuti dina am 29 mois ci kon su desee bi neuf mois Tay la wara gëna résister tey la ñu war a ñu leen di gërëm di leen sant dañu wara a continuer ba Kolda yal yalla yàlla jàppale ñu di leen masawu bu baax ci événement yi ci wàllu asalaamaaleykum. Go! Go! Go! Go! compatriotes eh, le président Ousmane Sonko, comme il l'avait annoncé, a débuté cette grande caravane de la liberté. Il est présentement dans le département de Goudom. mbokk salam alaikum. ñoo ngi fii ci diwaanu Goudomp avec la caravane de la liberté ñoo ngi jugee Ziguinchor ñaari waxtu ci ginnaaw fii mooy Goudomp ñu bàyyi leen nag ambiance fii mooy Goudomp Goudomp di dëkk bu miin Ousmane Sonko ndax ñëw na fi jaar na fi jaaratu fi Ayo, nyelam, nyelam, nyelam, nyelam. Ayo, nyelam. Sonko nee na seen xolam la leen def.